الذي ما رفع المصطفى قدما إلا ودع قدمه من حيث رفعه المصطفى ورضي الله تعالى عن خليفته حبيبه العالم الذي علم العلم والفقيه الذي فقه الفقه والذاهد الذي زهد الزهد وذلك هو العارف بالله مولانا الشيخ سيد الحاج مالك ورضي الله عنه وعن جميع أبنائه وبناته وإخوانه وأحبابه mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci guddi yu màgg yi nga xam ni ah ndeysaan ma ngay dem nag waaye bés bu xëy ci yow bu demee fi bàyyi am na it lu mu yóbbaale waaye bés yi jaar premier burdu ba muy teer ci kanamu yàlla yàlla na bokk ca ñay seede ni dem naa Tiwaawan dem naa senegaal wër na àdduna fekk naa génn góor yàlla mu nekk waliyan muwaffaq Cheikh Seydul Haaji Malick tàggat na ay taalibeem ak i soppeem ba bu weer wi xasee teeru ñu ngi joobe sa soppe ba yow yàlla di sayduna muhammad sénégal yëpp adduna bi yëpp àndandoo mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika xayril xalqi kullihim ndeysaan bis bu ñëw rek ak malaaka yi gon yi nga xam ne ñoo liggéey si woon dañ koy delloo ci seen boroom kon jotaay bii ndax julli ci yonent bi dafa am ay xususiyaat boo demee ci téere boobu la ñuy wax jaami ibnul mishri nee na am na malaayika boo xam ni ma nga nekk ci biir xabru seyduna muhammad képp ku julli ci yenent bi dafay wax seyduna muhammad ni ko diw doomu diw julli na ci yow ci bërëb sàngam sang bi ne ko bindal turam ndeyam ak baayam ñu ni lan la Seyduna Muhammad di doyee dossier boobu mooy buñ ca eggee yowm alqiyaamati Moustapha ni ayna alladina kaanu fi dunia yusalluuna alayya ana yéen ñi nga xam ni yéen a daan toog di julli ci man kaay leen seen kanamu boroom ma tinu leen xanaa nag wax dëgg yàlla mbokk yi ki jàpp ni gàmmu daa araam wala gàmmu bi la moom bala muy lijjanti gàmmu lijjanti burdu kañ ah burdu ci la ñuy nekk fukki fan doog a moom kañ na lijjanti burdu bu ñu laajee lan mooy burdu ñu ni burdu mooy julli ci yonent bi waa ba xam julli ci yonent bi daa aram wala dagan na ah fardun ala kulli muslimin alsalaatu ala annabi walaw maratan fi l yi nee na wa qiila lilwujubi amru rabbi wa amru man arsalahu linnadbi amrul ilaahi waajib la ah te yàlla moom moo digle ñu julli ci seydina muhammad ngeen yaakaar ni <laughs> yàlla na baay ba yowmal qiyaam mu wooñu ba ñu ñëw mu ni leen yéen lan moo tax ngeen daan julli ci seydina muhammad ah waaye nañ nañ xoolaat yëf yi xaasha wa kalla yàlla mukk laa yuxdi llahu nabia alquran wax ne yowma laa yuxdi llahu nabia walladina amanu maahu nuuruhum yasa bayna aydihim wa bi aymanihim waaw kay nga yaakaar ne gàcce googu yàlla dina ko teg sayyidina muhammad ah yàlla jàpp jaam bëgg koo duma ñu ne ko lu tax nga duma jaam bi mu ne dafa toogoon di màggal sama soppe bi ah wax dëgg yàlla nag man azama mahbuban fa kaana annama addaba muhibban ah ki màggal di teral ki ñu bëgg dafay mel ni dafa màggal teral ki ko bëgg ah alladi ataa arrasula xaqiqatan kaman ataa allah walladi addama wa majjada annabiya sallallahu alayhi wa sallam la maxaalata wala shakka bi annahu bilxaqiqati addama allaha subhanahu wa taala ah waa ngeen yaakaar ni nag góor gu toll ni Seydou Hadj Malick nekk waliyan muwaffaq ah waliyun la waaye muwaffaq mën nga nekk waliyu te doo nekk muwaffaq waaye Maodo waliyun muwaffaq mooy waliyu boo xam ni yàlla moo ko defal tawfiq ba waafaq ba iradatuhu wa iradatullahi li mu bëgg fexe na ba li mu bëgg tombeek la yàlla bëgg li yàlla bëggul bëggu ko ijaal ma acha muwaafiqan li ma tacha kay laa yakuna ma acha muxaalifan li ma tacha wa ma ana hatta acha xilaafa ma allahu yacha law jahada al abdu wacha ma kaana illa ma tacha wa ma tachauna illa an yacha allah mag mu tool noonu jeex tàkk naan ba mu jeex tàkk ci ulumul muhammadiya ah yàlla defal ko tawfiq ci guddi yi nga toog naan bidaak araam <laughs> wax dëgg yàlla yàlla yàlla doole jàmm waaye moom jarul tontu jarul werante naaddu alayha binnawajidi misla ma bihi qaala fi l isaa nadru hashimi ah moom daal li ñu am xam nañ ko ki ñu ko jox xam nañ ko fa ko jëlee xam nañ ko kaabiran an kaabirin xam nañ ko xam nga lu xew naaddu alayha binnawajisi bu ñu werante bu ñu vocalante bu ñu vidéowante di expliquer gaamu ñen nañ ci ne rek daa ah, mbokk yi ku tukki nag di nga yóbbaale sëri ñi ñëw gàmmu Tiwaawan ak ñi ñëw burdu bi yàgg ngeen a dem yóbbu sëri waaye am na sëri bu officiel nag sëri boo xam ni boo ñëwaatee déwén fekkaat ko fi boo ñëwaatee ginnaaw déwén fekkaat ko fi bu sa doom ñëwaatee fekkaat ko fi bu sa sët ñëwaatee fekkaat ko fi bu sa sëtu sët ñëwaatee fekkaat ko fi xam nga mooy lan mooy pince yi ñuy jaay pince yi ñuy jaay ngir tabax jumaa ji booy dem njibbi jëndal pins pour sa bopp jëndal sa jabar jëndal sa doom jëndal seen waa kër bu ñu xëyee ku nekk takk bosam ñu xam ne ñii seen bàyyi demoon na Tiwaawan jënd na pins cotisé na ci jumaa Alaaji Maalik ah du dëgg Seydul Xaaju Malik li mu ñu lebal bu doon tabax këram rek këram ni kaay leen tabaxal ma kër ay milliards laay laaj waruñu koo fekke suñu yére waru koo fekke suñu dàll waru koo fekke suñu mbaxane waru koo fekke waaye gàccee la ci taalibi tijaan nga ni alaaji Malik nga yaakaar mu wan la ras mu jàngala rasulilaay teg la ci siraatal mustaqim ba nga jomb loo xam ne sa moroom ñeme na ko ah ba kenn yabu la ñuy tabax jumaa ji ci diggante bi ñuy tabax jumaa ji nga jënd mbubb mu jar cent mille te sa cent mille demul ci jumaa ji ah ku ci nekk li nga def sa bopp ba ñu wootee jumaa ji léegi boo jëloon genn wàll ko ci jumaa jumaa ji romb na fii ah kon pins yi mbokk yi nañ ko def farata koko dëkk boo dem fekk ko fa pom dëkk boo dem fekk ko fa tey layu waaye jël pinci mu leer la ni def naa ko ci jumaa El Hadj Malick jële nañ ko boole ci yitte yi tabarakallah kuy njibi rek yóbbaale sa bos xale yaa ngi koy jaay loolu nag bokku ci dars bi de waaye jumlatul i'tiraad la ah? la tabarakallahu ndax nag ah, ah, wa bi tafaaduli lhimmi tatafawatu lqiyam nit ki boo ko bëggee raw da koy ëpp ay jéego waaw yal na yàlla loolu sutura kon nag ñu dellu suñu darsi bi allah allah waaw ah, pinsi yi moom nagaaw jeex rek tabarkàlla pinsi junni pinsi junni rek lay jar ku indi woon junni daal fexeel ba bu junni bi génn jàkk ji te jëndoo pins boo ko defee di nga werante di nga di nga layoog junni boobu de xaadaamtuhu bi ma di in nag dama bëggoon ñu jàng dars bi dars bi biñ biñ fàtte woon démb bay jàng dars bi kilifa yi ñëw wala ñu jàng dars tey bi bu jeexul ñu bu jeexee ñu jàng bu démb bi ah ban la ñuy def ñu jàng bu tey bi tabaarakallaahu imaamul Buseyri yi nag ndeysaan ma nga ca buntu fukkeel ba yaa akramal xalqi maa lii aluudu bihi siwaaka inda xulusi inda bayit bi imaamul Bushayri dégg na ci lu ne lu ne lu ne yekk nañ koo ci gis nga gis nga dama mujj dama mus a gis benn téere comme man yàlla mënatu ma bëggub liir te xaw ma ci dara ñu def ci titre bi imaamul Bushay Busayri ash-shaa'iru suufi rek ma daanu jënd téere bi ñekketel luñ ko yàkkul ci téere bi amul ma ne ko waaw loolu de looloo mën a nekk de gis nga boo yëkkatee loo yaakaar ni baax na ñëpp ni waaw tegal ci suuf baaxul loo yaakaar ni baax na nga yëkkati ko ñëpp ni baax na tegal ci suuf wa aqimul wazna bil qisti faaw équilibre am yonent bi bi mu ganee àdduna wa anna rannal lainul habbu yaxduruhu junuduhu wa huwa ri'didun min as-sadami ah abu lahabin abu jahlin du yëg lakk la ko safara boo demee al insaanu kaamil ma ngay jàngale ni safara du lakkaate ñu ni ko lan mooy lakkaate mu ni sirrullaahi wa amrullaahi fi naari mu ni sëkkër yàlla ak ndigalu yàlla ci safara mooy tax safara lakkaate xam nga nu muy mel xam nga malaat malaat moom yenn saa yi bu ñu koy opéré dañ koy anesthésier mu ni altine abu abu jëlin dañ koy anesthésier mi ngi biir safara waaye du lakk borom insaanu kaamil nee na am na benn picc moo xam ni xam nga lu muy dunde xalu safara waaw du lekk ay dugub yi de moom xalu safara mooy dundam waaw te day jàpp forme day dëgër waaw ku ko bëgg a togg nag loo koy toggee nag moom loolu xam naa dañ koy jàngat ci téere yi léegi nag ñuy weddi tawassul dañ ñu imaamul Buseyri li mu wax yonent bi yaa akramal xalqi maa lii man aluudu bi siwaaka inda xululil xaadisil amimi mu ni yow mi nga xam ni yaa gën a di ci mbindeef fi maa lii man aluudu bi amul kenn kenn kenn koo xam ni danaa wiiru ci kawam siwaaka ko du seydna Muhammad ah yenn yenn suraax yi wax ni dafa def lu ñuy wax ay siwaa jaahika aw ma lenn loo xam ne moom laay jàpp wala ma ci jafandu pour mu rëcc ëllëg mucc ci bàkkaar mucc ci duma yàlla ndara seydina muhammad borom ibnu muhayyab déglul hani an lana min wu shafaatu fi gadi yanaalu ridaan kulli abdin muwahidi ala xatain fi zanbi aw an taammudi ah jarairuna tumha bi jaahi muhammadi ida shufia almahbubu jaaz almubahraju waaw bëri na ñuy dégg way xamuñu lu muy firi xamuñ sax li wax mu ne hani a ndokkale waaw yéen ummata ñi gëm yonent bi hani a ndokkale yéen ñëw Tiwaawan gàmmu Tiwaawan ñi màggal gudd yonent bi ndokkale ñu ko waaw lu tax ngay nokkale mu ni lana minhu shafaatu fi gadi am nañu rammu yowma alqiyamati ci sayduna muhammad ñu ni ko waaw lan moo tax sa xel dal mu ni ida zarfun li maa yastaqbilu min alzamani bu ñu demee te borom téere ba ne wal filu da in laysa kal fili alladi tala ida ah bu ñu demee ba sufia rammuloo kan mooy rammuloo almahbuubu ku ñu sopp ki xam nga li tax yëf yi nar doy waar mooy yow li nga bëgg mi ngi ci loxoy ki nga bëgg ka mu bëgg ka ko bëgg li nga bëgg ci loxoom la ne léegi boo àndee ki nga bëgg jëm ca ka mu bëgg nga fay wuti li mu bëgg est-ce ka ka nga bëgg ka mu bëgg dina ko xañ la nga bëgg te nga ànd ka nga bëgg jëm ca ka mu bëgg mu ne ida shufia bu ñu demee ba yàlla rammuloo almax boobu ki ñu bokk jëpp ñëpp muy seydina muhammad jaada dana jéggi ba dugg aljanna al mubahrajoo mooy borom bakkaar wala borom jëf ju ñaaw waaw ah kenn koo xam ne ba may waaj a dee wala may bëgg dee sama xel dina dem ci moom ma am sécurité ku dul seydina muhammad wa fi nusxatin yaa akrama rusuli waaw xam nga alxalq alxalqu am wa rusul axas yaa akram alxalqi mu dugal rusul yi ah arrusulu min jinsil xaliqati yonent yi ci mbindeef yi lañ bokk moo tax mu ni yow mi nga xam ni yaa gën ci lu yàll bind ñaar rek am alfailu wal mafuulu alfailu allahu huwa alfailu xaqiqatan ndax bu ñu jàng nax olofal dañuy wax ni wa xaqiqatul faaili man faala al fial lil gayri majazan kama tazidun waaye dëgg-dëgg ji laa faaila illa allah sama sëriñ sëñ Babacar Abdul Aziz Dabbaax xafidahu llah wa raahu ah ak i bokkam bi ñuy jàngale laa ilaha illa allah boobu yàgg na xam naa sax amaguñ fukki at ak wala amaguñ fukki at laa faaila illa allah لا نافع بالحق إلا الله لا ضار بالحق إلا الله لا موجود بالحق إلا الله لا محبوب بالحق إلا الله لا مكون بالحق إلا الله لا مصور بالحق إلا الله loolu mooy lan amul kenn ku exister en réalité ku dul yàlla ah du dëgg ndax fal aarifuuna fanaw bihi lam yashhadu siwa almutakabbiri almutaali wa ra'aw siwaahu ala alxaqiqati haalikan fi lxaali walmaali wal istiqbaali waaw man laa wujuda min zaatihi li zaatihi fa wujuduhu law laa aynul muxaali ah mu ne nag ku dul yàlla mi xaaliq da ngay dee imaamul Buseyri yi mu ne man circonstance bu mënti doon sama bët ci kenn laa ko teg muy Seydina Muhammad من الأعوذ أي ليس لي أحد ألتجئ إليه غيرك الحارس وحيل المراد به هناك الموت الذي يعم جميع الخلق وما بعده من أهل الموقف والصراط والميزان وغير ذلك من الأهوال أم نجن ديدت الحادث العميمي mooy bu yàlla ëffee buuf bu ñu ëffee buftu ba ñépp jóg summa ilayya marji'ukum wattabi' sabila man anaaba ilayya summa ilayya marji'ukum xam nga ku xam rek xam boo xamoon ni boo ximmi ko sa xel seen kër la njëkk a dem wala ci sa waa kër wala ci sa famille yàlla mu ni toppal waaye booy topp ki ngay topp mooy yàlla naa ka ngay topp nekk ki jëm ci man ah summa ilayya nag marji'ukum summa ginnaaw bi ngeen faatoo ñu sang leen sang leen suul leen ngeen tëdd fa ba décomposé wu ñu seen bàmmeel yi ràpp maa leen di dekkal ba ngeen nekkaat nit impec waaye marji'ukum ilayya sama ci man rek ngeen di ñëwaat nag de du ngeen dellu seen kër de laa ilaa ahlikum wala ilaa ixwaanikum wala ilaa diyaarikum summa ilayya marji'ukum du ma ci yem ak ci yem ak ñeen nag li ngeen fa nekkee woon xam naa ko li ngeen fa diggee woon xam naa ko li ngeen doon wax tëgg mu leen ko fii la ma fekk yal na yàlla doolu sudura imaam Buseyri nee nag bu ñeggoo bu ñeggee ci loolu ñëpp jóg yàllaa daan wabta'athu yawma ayyuhal ma alam ahhad ilaykum ya bani aadam an laa ta'budu shaytaan ku nekk nan fan laa jëm Seydina Muhammad rek rek rek laa yaakaar waaw rek ma naan ummat yi waaw Muhammad boroom ah, boroom boroom boroom tabarakallahu alfawdu wan najaat fi l hijrati ila llahi nee na yàlla seydina muhammad na ko defal proposition seydina muhammad di bañ proposition ba yàlla ni ko waalan moo tax mu ne ko ndax ñii samam xeet lañ mu ne ko ah waaye ñoom saw xeet lañ waaye hum ibaaduka wa xalqi sama ibaadi wa xalqi maa leen bind te samay jaam lañ sëgam yow mi nga xam ni jaam nga ci biir jaam yi ma jël la ni yaa gën jaam yi nga bëgg jaam ñi ni nga leen bëggee nga la man mi leen yàlla man mi leen defar moo mbokk yi gis nga ki ngay jëflanteel moo xam sa mindaan la moo xam sa employé la moo xam sa taalibe la moo xam sa doom la bàyyil xel lu njëkk ni bala muy nekk sa doom wala mindaan wala employé jaamu yàlla la yëfu yàlla la de mam loo koon wa anta mamlukun li malikin sa doom dëgg la yaa ko yilif de waaye moomoo ko jaam la ngay jaam kon booy jëfandikoo ci ki ngay yilif ak nu mënti toll bàyyil xel ni ci yëfu jàmbur ngay jëfandiku xoolal yonent yàlla Muusa xoolal xoolal xoolal Firawna xoolal Qaaruun ak yonent yàlla Muusa yàlla moo jox ndigal suuf ni ko toppal Muusa toppal toppal Muusa mu ne ko waaw kii daal damaa bëgg rek bi nga xam ni suuf mi ngi wan xaaru naa ngi naan ay waay jéggal ma jéggal ma yonent bi bañ ki ñu ko booleel parce que jaam lañ ko booleel ñetti jaama am jaam bu ñu wax suuf ah, ak yonent bi xaaroon dajeel ak xaaroon bi nafsi gi yàlla ni waaw sama jaam yow Moussa ma bàyyi fi ñëpp di waxanteeg yow nga lànk sama jaam ma bind ko ci mu may moy wax la baal ma soixante-dix fois nga bañ waaye moo ko def juróom ñaar fukki yoon yim la sàkku njéggal bu la fi bàyyi woon ñëw ci man yàlla mi ko bind ma jéggal ko ah tabaarakallaahu kon mbokk yi nañu bàyyi xel suñu diggante ak suñu bopp walan yadiqa rasulallaahi jaahuka bi ida alkarimu taxalla am na ñu def tajalla bismi muntaqimi walan yadiqa du xaat mukk rasulallahi yow yonent bi ay yaa rasulallahi ah yow yonent bi jaaxuka sag darajaak sarammu bii ci man imaamul Buseyri idaa bu ñu demee ba alkarimu yàlla mi nga xam ni mooy aji yërëmaate aji tedd moom yàlla te xallaa takkaayoon na bismi muntaqimi ci turu muntaqimu xam nga karimu ak rahimu ak muntaqimu tur yàlla la waaye nga fekk waa ji tey mën nga am ci kër gi Moussa Ndiaye mu nekk ci kër gi ñoo ko papa mu nekk ci mbedd mi ñu ne ko Moussa njaay ah nga fekk ko ci commissariat mu nekk commissaire te benn jëmm la yàlla mi nga xam ne mooy raxmaan yi mooy raximu en même temps yàlla mi muntaqimu mooy raufu yàlla mooy razaqu mooy maanixu yàlla mii moo muti mooy maanixu yooyu yépp nag ay awsaaf la ay jikko yoo ay melokaan yoo xam ni ci benn jëmm la waaw te mooy yàlla imaam Bushayri mu ni nag buñ demee ba yàlla mi nga xam ne mi nga bi nga xam ni ci yërmaandeem mooy alkariimu damaa ñëw fekk tey kariimu montewul waaye jikko bu ñu wax muntaqimu moo monte muntaqim mooy lan mooy aji mbugalaate waaw boroom boroom tiriyaaqul qulub nee na waraa waraa kulli ismin min asmaaillahi nuqtatun min arrahmati waaw nee tur yàlla boo gis moo xam muntaqimu laak moo xam qahaaru la moo xam jabbaaru yërmaande yàlla ci ñu ne ko ah mu nii ba ci ñi nekk safara safara di fa fekk nit ñu koy lakk fekk yërmaande yàlla ngi ànd moom ñu ne ko waaw safara ni mettee waa ji ñu koy lakk nga ni yërmaande yàlla mu ni waaw mu ni yàlla ci kàttanam mënoon naa defar lu gën a metti safara ah waaye li tax mu yemale garaat bi ci safara mooy yërmaande dam na ci xeet bi moo tax ko level bu gën a boobu mu def ko ci digg bi mu ne idal karimu taxalla bis mi muntaqimi al karimu nag ah waaw waaw kay ña diqa ku ñu wax fóore ku ñu wax farra wa daaqa fi suduri min al wa bil kasri maa daaqa min al ñu bàyyi xel boog baat boobu ndax da gis ñuy wasifa ñi naan faha nahnu fii diqin ñi naan faha nahnu fii dayqin ah faraa nee na nee na wa dayqu bil fatxi mooy maa daaka fi suduuri bu nekkee dayqu bi da nga koo da nga koo da fatxa loolu mooy xat-xatu xol min al mashakili wa bil kasri nag bu ne fii diiqin mooy diiqul amkina maanaam espace bi moom moo xat waaw wa nadamahu baaduhum bi qawlihi wa dayqu ma daaqa bihi suduuru wa diddu fi amkinatin yaduuru waaw kay mu ni jaahu ka wal jaahu alqadru wal manzila moom mooy daraja yonent bi wa huwa maxuudun min alwajahati wa hiya rifatu alqadri loolu nag moom tabaarakallahu mooy daraja yonent bi ah xanaa ñàkk a xam Seydina Muhammad <laughs> nga xamante ni yàlla nee na ko bu dul woon yow doomu amal kenn ah? Ah? bu dul woon yow kenn du am yamu ca lenn lenn du am bu dul woon itam yonent bi itam kenn du am lenn <laughs> ah? kenn ak lenn ah kenn nit lay doon lenn mën naa nekk soos mën naa nekk animal waaye bu du woon Moustapha kenn mii nit du am lenn waaw ah borom ba nee na xattaa nooyi bi ngay nooyi médecine li ñu xam mooy organe bi lii mooy fonction am cœur bi nombre de battement moo normal inférieur baaxul ah supérieur baaxul waaye ban sirru nag moom mooy dawal ruux yi di alimenter globules rouges yi globules blancs yi yi nekk ay adversaire ci biir pour doomu aadama nekk jëmm juy dox loolu nag sirrul fi qabdatil jabbaar yi waaw loolu nag moom mbóot mu nekk ci loxo yàlla la yàlla na yàlla dool sutura yàlla boole ñu min ashaabi rasuli wa ahbaabihi waaw ñoo ñëpp nag ci maxluqaat yi yàlla mi ngi leen amal ci barki sidna Muhammad waxoon nañ ko ci dars yee passé keroog Isra wal Mi'raj bi yàlla recevoir yonent bi daf ne Moustapha àdduna ak ku fi nekk ak lu fi nekk ñi ñu gis ak ñu ñu gisul ñëpp maa ngi leen bind ngir yow rasulillah yi xam nga ko yonent bi tontu ne ko yàlla àdduna ak ku fi nekk ak li fi nekk yëpp man maa tax nga bind ko waaye man ak lépp wan nañ ginnaaw lépp ngir yow <laughs> tolluwaay la de inna min arrijaali man la yara cheyan illa wara allaha qabla dalika chey wa minhum man la yara cheyan illa wara allaha qabla dalika chey wa minhum man la yara cheyan illa wara allaha fii dalika chey waaw loolu nag ay tontu ay la ndax yonent bi kat la wax lan yadiqa rasulaay jaayka ida alkarimu taxalla bis muntaqimi ndax fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lawxi walqalami wala wa ilma lawxi walqalami mu ni waaw yonent bi gis nga addunya adduna mi wa darrataha ak wujjëm mi arab nag moo xam luy wujju nag arab xam nga tubaab koo épouse lay wax yaakaar naa ah olof ni wujju arab moom ni ñu ko firee mooy lor <laughs> mu ni wujju moom mooy lor ñu ni ko lu tax mu ni ku jigéen ki aawa bi wala ñaareel bi wujj bu nekk sa morom da lor parce que yenn saa yi di nga toog stable sa dem ci sa morom mu déstabiliser la sois le bienvenu. Aujourd'hui, رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزوله mutaqallidan bil haqqi wal burhani haza rasulullahi yawma nuzulihi mutaqallidan bil haqqi wal burhani haza lullahi yawma nuzulihi mutaqallidan bil haqqi wal burhani haza rasulullahi yawma nuzulihi mutaqallidan bil haqqi wal burhani هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزوله mutaqallidan bil haqqi wal burhani haza rasulullahi yawma nuzulihi mutaqallidan bil haqqi wal burhani haza rasul لله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان المصطفى بقرا هذا waa ji gis nga lii yëpp mu ne ko làbbayka mu ne ko da ngay laaj alalu yàlla alalu yàllaa ngi jëlal may la araabi yu ni waaw Moustapha man yow yow yonent bi yow eh Mouhamad ibn Abdullah yow laa waxal man caaxaanuma de dama lay ñaan ni ko yàlla ngay laaj lim ma jox yàllaa ma ko jox jëlal waa ji war naaru góor dem ca pénc ma fekk paay toog mu ne leen yéen iñaan moo tee ngeen gëm yonent bi waaye xam ngeen ni maama ma gën seen maam bàyyi ma gën seen baay moom moo leen gën moo leen gën a tedd inna muhammadan yuti ataa man la yacha faaqatan ah li tax ma indi qissa bi mooy al itaau mooy joxe goo xam ni da ngay joxe ba mu jeex xam nga am cinq cent mille sa poos joxe ko bàyyi fa cinq mille nee na loolu du al itaau dégg nga day loolu du saxaaw ak saxaaw moo joxe gi ngay joxe ba mu jeex tàkk dara desu foofu loolu na xam naa ni moom ñu ko mën bëriwul de joxe li nga am ah des kenn ki am ah te loo am moo tax nga am ko loolu ñu bari mënuñu ko ah kenn am mu yàlla loo am moo tax nga am ko nga ne ko yàlla li nga amoo li nga li nga taxoon ma am ko yow mi am joxe naa ko ngir yow mi nga xam ne yow rek yaa fi am loolu ñu ko mën bariwul de ah buñ tolloon ci mustawa boobu tey jumaa ji yeggale nañ ko bu yàgg buñ ñaala buñ ñaala tolloon foofu jumaa ji noppi na waaw jënd pince rek pince nga xam ne junni lay jër junni ah ñaata junni nga jaay ci bëccëg bi junni boo jël boo jël boo jënde bong bong wala nga jënde ko lekk wala sonance wala boisson naan ko ah te ladidu taami wal mulaa wa nuumatun li rijsin wal bilaa wal bilaa sa ya óobu ah bokk la bi nga jën def ko ci pinc bi di jar junni wala ñaari junni ñu tabax ko ci jumaa joo xam ne ñaata siècle na ko fi nekk ku ca kàbbar nga am ca tuyaaba boo demee yàlla tabaxal la kër ci aljanna bokkul de ah waaye nag kullun muyassarun lima fi saxifa ku nekk ak li yàlla jàpp ni ci yow de am na koo xam ne jënd crédit ah paas ah cinq mille wala sept mille moo gën a yomb ci moom jël junni bi def ko ci jumaay alaaj jumaa jumaa ji ñuy tabaxal ngir yàlla ah te mën na am sax paas boobu youtube lay dugg rek di xool yoonam nekkul ah waaye foo xam ne danga ko fay def muy paas paas la sax paas la waaw paas la bii paas moo gën a wóor ndax paas bee day jeex te bii paas moom du jeex amul muuruj da ngay dugg rek tabaarakallaahu لله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول لله يوم نزوله برهاني هذا رسول لله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول lullahi yawma nuzulihi mutaqallidan bil haqqi wal burhani min al mu'minina ah anfusahum wa amwaalahum nag am na ñoo xam ni seen martaba fenn la mooy jaayanteek yàlla julli ngir dugg aljanna wala bàyyi mooy yi ngir ragal tere am na ñoo xam ne yuhibbuna allaha lillahi wa yaabuduna allaha lillahi wa yutiuna allaha lillahi dañuy bëgg yàlla ngir yàlla dañuy topp yàlla ngir yàlla dañuy jaamu yàlla ngir yàlla moo tax Mawlana El Hadj Malick nee na jaamu yàlla géeg mbind méeg wax géeg bëgg yonent bi rek laa am assurance ni su ma demee ci kanamu yàlla ñeme naa ko faa teg walay sali alqaaka yaa amali si wal mahabbati wa taadimi wa salami ah waaw waaw alqaaka aw ma lenn man Maodo loo xam ne dal na sama xel lu ma mën a teeg sama kanamu borom lu dul leer na ma ni bëgg yonent bi am naa ko te almahabatu amrul ilahi maanaam gis nga bëgg ki nga bëgg raison yi tax nga bëgg ko am na ko ko bañte raison même raison yi moo tax mu bañ ko ah fa yahtadi li waaidin aw li waliyin aw li risalatin bu yàlla bëggee nga jub te ko ci yoon daf lay connecté ak connexion bu ñu wax al hidayatu mooy ko ak njub boo boobaa nag boo dajeeg yonent da ngay gëm boo dajee war ak yonent boo dajeeg nit yàlla da ngay gëm boo dajewul ak yonent dajewul nit yàlla bu yàlla ne métier ak njub ba mu connecté ko ci sa xol mën ngaa jàpp rajo rek rajo asfiya yi wala malikiya dégg kuy waaraate nga doxe fa ragal yàlla ah waaye ida lam yurid ko sax buñ jëndee paas waaraate buñ ko gisee dañuy sappe duñ ko xool am na ñoo xam nag buñ jëndee paas waaraate moo tax kon addunya wa darrataha min juudika wa min ulumika nag وفي الحديث من أحب الدنيا أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه دي بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى حديث ñëw na nii ku bëgg àdduna di nga lor alaxira ku bëgg alaxira rek di nga lor àdduna mu ni nag góorgóorlu leen ba maandu ci seen diggante ba ngeen jël li nga xam ne du jeex mooy lan alaaxira bàyyi fi loo xam ne day jeex mooy lan àdduna waaw ah waaw kay fa yaa ayuhal baani mahal diyaafati alam taalaman jala xaribu ah maam Maodo mu ni lekk gu neex gi jarul mooy yàlla mbub mu rafet jarul mooy yàlla jarul xeeb sama ni ko lan la si mu ni ladidu taami wal mula wa noomatun lil jisin wal bila sa ya mu ni mbub mi lu muy rafet rafet rafet fa muy mujj morso fa beere morso mbalit wala morso tayukaay kon amin wi na rafet ok waqaala abul abbas al mursi abul abbas al mursi nee na raaytu saydana omar ibn alxataab fi lmanaami fa qultu lahu ma alaamatu xubbi dunya qaala xawfu xawful madammati wa xubbul wa xubbul wa xubbu sanaay nee na abul abbas al mursi yaakaar naa mooy si mooy mooy mooy imaamu mooy sëriñ imaamul Buseyri su ma ko jaawalewul mu ne dafa gis Seydina Omar ibnul Xataab mu ne ko waa Omar ku bëgg ku dëddu àdduna ku bëgg àdduna lu ngeen di xàmmee mu ne ko bëgg àdduna mooy koo xam ni buñ la dee tagg da ngay yëg sentiment de fierté ah mu ne képp koo xam ni buñ lay wax wax ju baax di la tagg da ngay kontaan àdduna am na sew cër ñu ne ko waaw ku dëddu àdduna lu muy def mu ne àdduna ki dëddu àdduna ku ko tagg ak ku ko taggul du problème am lii problème am mooy fexe ba yàlla gërëm ko ah moo tax moo tax mam Mansour wax ko mam Abdoul Aziz Dabakh wa sawwi ahlal ghina wal faqri fiika wa sawwi ahlal faqri fiika wa man ataa yadummu wa man xad kaana yutrika mu ne alaaji Mansour mu ne alaaji Abdoul Aziz Dabakh jamono ngi ñëw di nga gis ku ne di nga gis lu ne ni dina ñëw ci kaw di jooy nga yaakaar dalaa bëgg fekk mbañeelu gu ëpp moo fees ci xolam xol ba attanatu ko mu ragalaat jaar ci ay bëtam mu ne am na koo xam ne day ñëw tagg la bay jooy fekk dalaa bëgg bay jooy mu ne ko ñaar ñooñu ki la bëgg ba loo wax mu ni waaw ak ki la bañ baloo wax mu ni noonoo alaaji Mansour mu ni fexeel ba bu leen noonoo fexeel ba ñaan ñëpp yem ci yéen ci ci yow doomu aadama bi mu ne fii eggoo ci jamono boo xam ni ki lay bëgg ak ki bañ ki tagg ak ki lay ŋàññ xàmme woo leen bokk goo ci nitu yàlla yi waaw moo tax ma ngay wax ci téere وكم لامني بعض الأحبة عن السكون والسكوت وما السكوت سكوت خوف وجذع إلى أني رأيت من بين الإخوة إذا لم يبقى بين بين من بين الإخوة غير المعارضة والمعاذبة والتهمة صمت فرارا من الشيطان وقال مولانا الحاج مالك سي إذا الكلب لم يؤذيك إلا من نبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبح ها am na koo xam ne noppi gi mu noppi ñàkk argument ko tax a noppi a xam nga ne moo jafe noppi te fekk am nga argument am na koo xam ni jéggale gi mu jéggale dafa mun ta jot ca ko ko tooñ wala mënul dara ci ki ko tooñ moo xam mu jéggale waaye ki nga jekku jéggal ko kooku moo jéggale waaw ki la tooñ ba ñëpp xam ne tooñ na la nga jekk ko ba ñëpp xam ne jekk nga ko nga jéggal ko ba ñëpp xam ne jéggal nga ko loolu mooy ak jéggal ah kon mbokk yi nañ xoolaat suñu bopp Souleymane ba bu ñu ko taggee rek mu gis boppam nag ah bu ñu ko waxee leneen mu commencé mer kon képp koo xam ni buñ la taggee nga kontaan buñ la taggee nga kontaan wala buñ la xasee mu naqari la defara góor sa diggante ak sa borom yaa nafsu laa taq na taqnati min dallatin azumat inna alkabaira fi lgufraani kallamami yaa nafsu yow bakkan yaa nafsu yow sama bakkan yaa nafsu yow doomu aadama yow doomu aadama yow bakkan bul bul naagu bul découragé bul désespéré bu sa bàkkaar bëri wala sa tooñ yàlla bëri wala sa mooy yàlla bëri ba nga yaakaar ni amoo cër ci yërmaande yàlla déggal suñu góor gi Mawlana El Hadj Malick gis nga lu la lu la lu la réer ci wilaaya Maodo ci ñàkka a wane karaama boo duggee ci biir mbindam fekk ko fa mu leer naññ xolal wa rahmatullahi kullal xalqi xad wasiat min fajirin wa mutiin zahidin baari ah law kaana baabuka laa yaatihi zu isamin fama doyita gafuran kulla awsaari xaatabtu rabbi ah xitaaban la wax xaatabtu rabbi rek doyoon na waaye xitaaban ban la mu ni laa yeliqu bina lu xew moo le mu ni faxfir li abdin min al asaami xayaari ni wa rahmatullahi ah te ar rahmatullahi alxaqiqi mooy seydina muhammad xad wasiat xaj xajoona mat na matale na kullal xalqi bépp mbindeef min faajirin déggal góor gi ni mu waxe waaw état bu dee fay chômeur yi fonctionnaire ni ñuy def kon ah sëgam yi lañuy fay jox leen prime de chômage kon ngal la fonctionnaire yi ah moo dooni min faajirin yërmaande yàlla kii mooy yàlla kàccoor bi am na ca cër wa mutiin ak kii topp yàlla zahidin ki dëddu àdduna baari ak ku baax ñoom ñépp buñ teebee ci kanamu yàlla li la afi muftaxiru waaw kii topp yàlla ak kii mooy yàlla ñoom ñépp am nañ cër ci kanamu borom bi ci yërmaandeem moo doon yàlla kat law kaana baabuka laa yaatihi du isamin fama duita gafuran kulla awdaari laan taqnati min dallatil azumat yow bakkan ah bul naango de ay ay laa tey ësi min dallatin ay min gufraani dallatin bul naagu ci jéggal de aju mat ñu ko waaw lu xew mu ni inna alkabaira jamu kabiratin wa qad ixtalafa alulama fi tacyiniha wa qila la sagirata wa kullu ma usiya allahu bihi fa huwa kabirun waaw mu ni bàkkaar dafa am lu ñuy wax alkabair ashirku Ah, ci bakkaar yu mag yi la bokk azina alqatlu yooyu yëpp ci bàkkaar yu mag yi la bokk waaye boroom xam-xam yi am na nañu ni déedéet bàkkaar bu ndaw amul bàkkaar bu mag amul mu ni lépp lu ñu mooy yàlla rek rëy na yàlla li mu def ci doomu aadama ak ni mu toll loo ko mooyee rek lu rëy la waaw waaye boroom misbaax borom misbaaxu saalik moom d'accord na ni bàkkaar bu mag am na bàkkaar bu ndaw am na ndax wax na wa bi ji ci naa bi yu mag yi ci la la yàlla di jéggale bàkkaar yu bàkkaar yu tabarakallaahu ndaw yi mu ne alkabair nag jamoo kabiratin nee na bàkkaar yi fi la ofraan si njéggalu yàlla kàllama mi dafay mel ni ay bàkkaar yu ndaw لعل حرف ترجي لكن في المحبوب mu ne لعل bu nekkee في المحبوب ترجي la في المحبوبات وإشواق في المكروهيات waaw mu ne لعل mbes le rahmatullahi yërmande yàlla xiina yaqsimuha bu demee ba du ko séddale taati dana dikk ala xasabil isyaani ci kemtulaayu bakkaar yi fil xisami ci séddale ya imaam yi neen li muy dalal xelam mooy mën naa am yàlla buy yëg buy buy séddale yërmaane gi ku am ku am tonu bàkkaar mu jox la tonu yërmaande ah ku am kilo bàkkaar mu jox la kilo yërmaande nee na mën naa am boog yowmal xiyaam bu demee yàlla jëflanteeg ñun noonu wa rahmatu rabbi التي أشار إليها الناظم هي مئة رحمة التي يرسلها على عباده يوم القيامة تكون قسمتها على حسب العصيان والذنوب بين العصاة على قدر ذنوبهم فمن كان أكثرهم ذنبا كان أكثرهم رحمة وفي الحديث إن لله عز وجل مئة رحمة بث منها في الدنيا رحمة وأمسك indahu tisaatan wa bu doon téeméer yàlla benn bi la wàcce ci la doom di yërëm ci la ndey di yërëm doom ci la doom di yërëm ndey ci la la di yërëm malaat ci la doomu aadama di yërëm moroomam ci la xar wala bëy wala fas mindeef yépp benn yërmande lañ séddoo quatre vingt dix mi ngi ci loxo yàlla yowmal xiyaam moom lay séddale jaam ñi loolu nag dal na xel imaamul bu séddi wax daal xam naa ni yàlla na ko yàlla dogale noonu wala nu ko gën a yomb mooy ku nekk rek nu sa bàkkaar ah waaw tabarakallah am na ñoo xam ne xam naa ne ay saako lañ leen di jox waaye la la la la majnunu lay laa wax rek mu ne walaw istaghfa walaw istaghfartullaha kullama zakartuki mu ni ndaw si ma bëgg su nekkoon saa yu ma ko fàttalikoo tudd yàlla wala ma jéggalu yàlla du ma deewaale bàkkaar dafa am genn genn mag ndeysaan bu mos a ñëw fii Tiwaawan bi mu ñëwee Tiwaawan mu dégg ñuy wasifa naan astaghfirullah azim alladi la ilaha illa wal xayul qayum mu ne waaw ñii lu ñuy wax ñu ko ah, dañuy jéggalu yàlla ah fajar jot mu déggaat ñu nekkaat ci jàkka ji astaghfirullah mu ne lu ñuy waxati mu ne dañuy déggaat dañuy jéggalu yàlla mu ne ah ak alaaji maalik jii nag ñoom nag ñoo bëgg yàlla nag te te yàlla ñoom ba ñuy tëddi ñu ngi jéggalu yàlla bi ñu yeewoo ñu ngi jéggalu yàlla waaye ñoom kañ lañ fi tooñ yàlla tooñ bu tool nii ah waaye xoolal rek taalibi tijaan bi téye kursam wal mustaghfirina bi ashaari ah nga xam ni yàlla daf leen sopp naw leen ba tudd leen ci alquran nga dem julli ñu julli sërmal ngay njibbi ñuy njibbi nga ni déedéet <laughs> am na loo xam nag lu jar a la dem ci jàkka julli ba pare ñu lal mbalaan mi ne a'uzu billahi minash shaytaani rajim nga génn dem est-ce que yéen a ngi bàyyi wax ji ñuy mosutu ci seytaane ngay daw wóorul de astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ah wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil sama aleykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina lu ngeen bëgg mi ngi ci istighfar taalibi tijaan bi yonent bi ni na tijaan yi sawaa waa kër nañu def istixfaar bu ñuy wasifa fanweer loo mën a mën a bëri bàkkaar loo mën a mën a tooñ fanweer yi bu ko fa fekkee dina ko fóot ba mu wecc loolu nag du ñun yëf yi boroom yëf yee ñu ko may mahdu minnatin min allahi tabaraka allahu mu ne nag taati ala xasabil asyaani fil qisami kon nag yàlla yowmal xiyaamati ci lay doog a génne quatre-vingt-dix-neuf yi waaw quatre vingt yi nag mu teg ko ci loxo Seydina Muhammad te yàlla nee na yonent bi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda naa la jox ba nga doyal Moustapha ni idan la arda wa wahidun min ummati fi naari naa la jox ba nga kontaan ba nga bég Moustapha ni du ma bég mukk fii kenn ku musa wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulillah ma nga safar wala duggagul aljanna noonu nag Cheikhuna Tijaani noonu la gisee maamam Seyduna Muhammad muy jàng wa minhu raa jaddahu sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u wa duhaa wa inda fatarda qad ramaahu bil ahzati ah waaw kay borom duratul qarida nee na Cheikhuna Tijaani gis na maamam muy jàng wa duhaa waaye bi mu eggee ci wala soo fa yutika rabbuka fatarda mu ne ko Ahmad Tidiane ñaanal Cheikh Tidiane di ñaan yonent bi naan amin xam nga ñaan ngoo xam ni cheikh ay ñaan Muhammadul Amin naan amin ah borom téere bi ni kon wana ak màgg bi daawatin ci ñaan goo xam ni cheikh ay ñaan rasulillah yi naan amin xam nga loolu moom tabarkallaahu mu ni nag xiina yaqsimuha ay baynal xalaaiq ya rabbi wajal rajaa'i gayra muncakisin ladayka wajal xisaabi gayra munxarimi ya rabbi ya borom sama xam nga rabbu rabbul manzil rabbu mooy borom mbir borom waaye bu dul yàlla kenn du wax rabbu te laa foo ci dara dooni rabbu daari rabbul manzili ah rabbu daabati rabbu sayaara waaye rabbu boo ko déggee rek yàlla la waaw rabbu yàlla lay firi allahu yàlla lay firi arrahmaanu yàlla firi yàlla lay firi waaye benn bokku ci sa moroom station maa ngay taxawee xam nga Malick ak rabbu rabbu daari mooy ki jënd terrain bi mool mool yi fay moolkat fay architecte tabax kër gi ba mu ni kër gi sama kër rabbu daaree jaar foofu maaliku daar nag mën naa bañ a fekk fu ñu koy jënde mën naa bañ a fekk fu ñu koy tabaxee waaye moo ko jënd bu ñu taxawee ku nekk ni sama kër mais ku leen xam ñoom ñaar di nga xam ni ñaari kër yi bokkuñu ni leen waa ji moomee waaw ndax bii xam na terrain bi muy jar waaye kii moom kër gi nangam lay jar la xam mën na xam maçon bi ko doon liggéey nan la tudd ban bis la ko commencé ban bis la ko tabaxee ma tabaxe maneebar yi ma amoon ñaata maneebar ca am mu ni yàlla nag mooy rabbur samaawaati wal ardi moo defar àdduna moo defar alaaxira moo defar doomu aadama te ba mu koy defar moom rek suñu borom subhaanahu wa taala moo xam kayfiya bi waaw naka la ko defee moom rek mënoom neex bët neex bët neex bët ba gis ne asamaan bi ko yàlla defar fii la commencé fii la ko terminé déedéet suuf bi mu koy defar fii la tàmbalee fii la ko terminer déedéet doomu aadama sax bi ko yàlla defar boo xoolee jëmm ji doon fii la njëkk a defar waaw mënoo xool ba ñu fii lañ ko doon ñaw kon ñaw bi fii la tàmbalee fii la ñaw bi yam fii la tàmbalee déedéet bi ma si ati yatasarraf kon yaa rabbi yow borom sama ay yaa rabbi irham nii wajaal rajaa yi yàlla na nga def sama yaakaar xam nga rajaa u ak umniya bokkul ar rajaa u mooy baadal amal li ngay xalaat di ko yaakaar day fekk nga def la nga ca war a def doo yaakaar moo tax sëriñ Babacar Si ni rajaa la waajin kada tamaun del tegtaloo dara doog a yaakaar loolu mooy raja inna raja ala fi nag wajaal raja yi xayra mun de yàlla na nga def sama yaakaar ci yow muy bañ tas muy bañ a njattu la dee ka fi yow ah, moom sax am na sens ndax raja uhu ilallahi billahi fillahi min allahi bokk la koo xamante ni raja uhu li xayrillaahi lil ayaari ki nga xam ne dafa yaakaar yàlla imaamu Bushayri nee na Allah ñëwul xanaa ñi ci bunt bi ñu wàññi coow li tuuti waaw mbokk yi ñu tourné ñun ñëpp jublu penku defar sàppe yi ba mu jub nañ defar sàppe yi xaar ba sëriñ bi toog jàll ci kanam ndax ñu am benn sàppe ci ginnaaw kilifa yi am fuñ taxaw sëriñ bi mu ni sëñ Babacar mu ni am na ay gan yuy ñëw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 allahu akbar allahu akbar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 asalaamu aleykum àggalee ñu jàng faatiha salaatul faatih kul huwa allahu ak benn juróom-ñaari inna anzalnaahu ñu tëje ko benn peru salaatul faatih def ko addiye seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu taala ak njabootam maam Seydi Haaji Malick Si radiyallahu taala ak njabootam ñaana ko kilifa islam bi ñaana koy daawi jullit yëpp ak seen njaboot yann yàlla yokk seen leer yeesal seen yërmande taas ñi seen barke bu ñu àggalee ñu jàng faatiha salaat faatihi ayatul kursi yu lixlaas falaxeek naas tëje salatul faatixi ko yàlla def ko addiya seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanoo ko sëñ Babacar Si Mansour yéene waale ci njabootu mam Seydi Haaji Malick si yépp yal na yàlla guddal seen fan dolli seen wér liggéeyu jumaa ji mu tàmbali yal na ko yàlla yeggale ci loxoom ñu fekke ko jaamu ci yàlla at yu bari bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bu ñu àggalee dégg ngeen li sëñ Babacar wax ñu dimbali ñu rek ñëpp wëlbati nee na ñu baal ñu rek Seydi Hadj Malick si bu suñ maam Cheikh Alhaji Abdou Aziz moo ñëw ziar ci leen moqale yi fa tabarakallahu mu bëggoon rek ñu ko mu waxtaan ak ñun ba pare ñaanal ñu ñu yewi ko soog di tàmbali burdu bi ñun ñëpp nag nañu dellu ginnaaw tey wóyee ndigal na ñëpp toog day waxtaan ak ñun yeweeku ñaanal ñu ñu doog di def burdu bi mbokk yi ñëw leen ñu wéyee ndigal ñun ñëpp fa nga nekk toogan te ñu wàññi wax ji ñu déglu kilifa gi rek mu sànnanti ak ñun ay kaddu ñu ndokkeelaale ko moo gën ni ñuy def ni nañu toog ku nekk fa nga taxaw rek toog fa ba ñu paree ngay soog di jóg bu ñu paree ñuy soog di tàmbali burdu bi ñi ci biti ñu ngi leen di ñaan ñu wàññi wax ji nañu wàññi wax ji mbokk yi Maxtaar bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من وهمنا رشدا ربنا لا تزغ قلوب ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه asalaamualeykum wa rahmatullah allahi taala wa barakatu mu ngi nuyu xalifa bi di xalifa cheikh alxaaj malik radiallahu anhu di xalifa Cheikhuna Tijaan Seydi Aboubacar Mouhamadul Mansour ابن والدنا وشيخنا وحبيبنا والدليل لنا وصلتنا إلى الله من كني دائما بلسان الناس جميعا شيخ القوم الشيخ الحاج محمد المنصور qaddasa allahu ruuxahu wa nafaana bi barakaatihi di di nitu yàlla bu baax di ku sell di ku tedd di ku bari xam-xam Cheikh El Mouhamadul Mansour woowoon ko mu ñëw fii di fi defi tarbiyaam ñi fekkee dundu Cheikhul Hadj Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu suñu delloo seen xel tuuti gannaaw son Pape kër gi dafa feesoon dell ki naari gànnaar ak ay tukkulóor ñoom ñëpp la ñu doon defee seen هو المربي الكبير والعارف المعرف لسه سالكين إلى الله أي طريق يسلكون ليكون سلوك أحدكم أقرب وأهدى إلى الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه بشيخنا ووالدنا وعمنا وحبيبنا ورجائنا في الله شيخ الحاج منصور هو رجائي أنا الحاج مالك إلى الله وهو دليلي ومرشدي إن شاء الله ñu ànd la dem fa gi dem Fuuta seeti leen léegi góor gi dem Fuuta seetu leen dellu si moo tax fan yëpp suma ma leen gisee toog sama xol day day sama xol day feex góor ga yàngal leen yar leen boobu am na ku fa nekk ku ñuy wax Mbay Jóob Fari Mbay moo doon commandant de cercle ci jamono tubaab yi boobu sax fekk na tubaab yi di xaw dem waaye daal boobu daal ci époque bi ñu fi nekk la ñaar nag kenn ku nekk yaay sa moroom muy yow ci soppante ci cofeel diggante sëriñ bay toppatoo rakkam lool ci njàngale mi ci yar bi ci taxawaay bi yal na yàlla dolli leen yàggal ci suñu biir ak suñu kanam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu man fekk na jëkk ñuy dem ci benn at walla ñaar góor gi yóbbu ma madinatul munawwara ngir ma jàngi am fa juróomi at muy suñu rakk di suñu xarit di suñu soppe yàlla dogal yore daara ji yore njàng yore façon defar jikko ak nit ndax mu mën a jubook bopp ñu ñibbisee man ma ñibbisi 73 73 bi. ma waxtaan ak góor gi ne ko man daal papa doon naa ñaan. sama rakk yi. bu leen Maroc yokk seen étude seen njàng góor gi di ku baax ci njaboot ma xaaj ma li loolu rafet na dégg naa ko bés ma ñëw rek mu ne ma xaaj ma li ma doon sàkku de defar def naa ko ànd ñu jóge fi l'an 2076 73 la ñibbi 76 ma ànd ak ñoom Seydou Nooru magam macha allah sëriñ Bay Abdoul Aziz Dabakh mi macha allah Mansour Niang bu som pap Njoogu Niang macha allah Cheikh Ahmed Tijani mii toog macha allah Sidi Ahmed rak kam bu mu bokkal Cheikh Alhaji Abdul Cheikh góor gi tudd ko Cheikh Tidiane ñaari Cheikh Tidiane la mu lay ñang suñu doom jigéen di suñu jarbaat yaayam ji ko jur magu baay Alaaji Mansuur ko jur ak baay Abdul Aziz soxna Umm Kulsum Maalik masha allah Pape Makhtar Kébé mu baax mi toog sama ca lañ bokk macha allah ah defe naa daal jege nañu fukk ci li ma jot yóbbu leen ñu góor góorlu ba nga xam ne góor gi ndax rek ni ñu sonn ci seen àll wa rawatina yar dal ga ak teega ak soru lépp loo xam ne am na lënt lënt bu ci nekk seen njàng rekk leen doon yitteel bis ba ñuy jóge pa góor gi boole mag su Souley Dramé ne ma mu mu gunge la ci yoon wi ak Habib Dabakh Habib Abdoul Aziz Dabakh